kéemaan gu mag dafa feeñ ci moom nettali naa ko bu yàggul moo wax ni Cheikh Ahmadou Bamba bi mu waree jot ci Cheikh Ibrahima fekk mu ne Mauritanie fa nga xam ni fa la waajuram nekk gàdd ga waajuru Cheikh Ibrahima nekk sëñ Touba dafa dem ba ca tund wa ko tiim nekk fa sax fa di jaamu yàlla shérif ba nga xam ni mooy bàyyi taxub soxna sa di kilifa gu mag barab ba di gàdd gu mag waa gàdd gi bu ñu génnee bu ñuy dëpp romb suñ tubaa ci montagne bi muy jaamu boromam rek bu ñu ñëwee di ko gaaral kilifa gi shérif bi ñu koy koy gaaral ne am na ku ne fii ab kawri la maanaam nit ku ñuul la di jaamu boromam mu ngi fii tiim gàdd gi di def ba bis shérif bi waaj ngir xam lan mo fi indi jëmm jooju daa di am ku mu yónni ci Cheikh Ahmadou Bamba ngir Serigne Touba wax ko lan lay def foofu bi kooku ñëwee ñuulaay bi tax taxaw taxawu koo respecté ñëw rek laaj ko yow lan nga def Serigne bi ni ko da nga maa war a nuyu ba mhm. nuyu ma ba ñu waxtaan. kooku dëgër bopp sëñ tubaa tontu ko la ko sërif bi déy li sërif bi dey waa ji pour mu wax kook sëñ tubaa sëñ tubaa tontu ko ko nga xam ne bi ko sëñ tubaa tontoo ci lim mu waxante woon ak sërif biir moom daa sampu xelam dellu ca gàdd ga ni bi kenn ak du nit li nga ma waxoon fii tontu na ma ci te waxaguma ko ca ga ni bi kenn ak du li nga ma waxoon fii tontu na ma ci te waxaguma ko sërif bi daal di xam ni jóg jot na daal di waaj ànd ak ñi mu àndal ñëw nuyoog borom Touba nuyoo bu tedd waxtaan ak moom ba yegg ak moom ci lan moo nga sax fii tiim sunu gàdd gi sëñ Touba xamal ko ni dafa am ku war a ci man kok way juram wu jigéen ci gàdd gii la nekk seen borom sa yàlla moo ma wax ni moo ngi fii naa jël si soxna Fatima. ko kay soxna Fatima Suxra. ok moo jur Cheikh Ibrahima. moo jur Cheikh Ibrahima si kooka di ko limal doomi boppam yi. di ko limal doomi boppam yi naar bi di ko limal doomi boppam yi kum lim sëñ Tuubaa ni ko du moom mu fàtte ñaari doomi mbokkam yoo xam ni seen baay daa faatu mu yor leen bàyyi sëriñ Dame Atta bi mu noppee ba ni ko ah ñu fi ne ci ñu ñu mën a dem kër jeex na sëñ Tuubaa ni ko jeexuñu des na tey insisté sëñ Tuubaa insisté mu dawal sixième sens bi ni ñaari doomi rakk yi mbaa magam mu daal di leen di tudd comme njëkk tudd sëñ tubaa ko du moom mu tudd ka ca des sëñ tubaa ko kooku mooy meññ ki ma ki war a feeñ ci sama liggéey tey mu ni ko waaye kooku xemmemwul maanaam jigéen ju ñuy xemmem ndax yaram wépp dafa jib sëñ tubaa ko sa moom la ma wax ni mooy mooy meññ ko ki ma ki ci sama liggéey daal di koy laaj yan condition nag la ñuy def ba nga jox ma ko mu wax ko suñ tubaa suñ tubaa def loola mu jox ko ko yàlla dogal bi muy ñibbi si Sénégal moo ko way jur Cheikh Abdoulahi ñu ànd ñëw waaye moom feeñewul ci yéen def nañ juróomi at ci yéen mhm. waaye bi ñu déparé ci yéen sëñ tubaa wax sëñ bu Bousso maa ngi ñëw te yàlla ni ko boo jaaree ci dëkk bi garabi Touba yi rek boo ko séenee ma résilier contrat bi mu dëpp daal di wàcc kër sëñ Abdourahmane Lo Ndaam bàyyi fa waa kër ga foofa la bàyyi way juru soxna Fatima Souhra moomu foofa la ko sëñ Touba bàyyi kër sëñ Daam Abdourahmane Lo Daaru Alimul Xabir ñëw njaareem 1912 ga ko fa sëñ sëñ Touba bàyyi fa la soxna sa amee gan 1912 sëriñ Touba tuddelu ko Ibrahima xalilullah cey 12 gi sëñ tubaa ñëw njaareem la sëñ Ibrahima feeñ mu dëppoo gramo masiri ja ila njurbel la daa lafatin law ayanu sirama fi seyri maram sëñ daam abdourahman loo bi sëñ ibrahima matee jàng sëñ tubaa da wax ni na ko mu indi ko sëñ tubaa dalal ko jox ko mu jàngal ko alquran ba mu mokkal wattu alquran ni ko ñépp wattoo ci kër sëñ tubaa sëñ daam àndaat ak moom ba ci cheikh ahmadou bamba ni sëriñ bi de ak dongoo ngi boo xam ni jox nga ma ko jàngal naa ko ba mu wattu alxuraan musta yëkkati sama siditub jë musumaa yëkkati siditub jë am lu jafe ci njàng la nag jàngal nit alxuraan ba mu wàcc ko man ko ci wet yépp te musoo mer musta mer musta yëkkati sama siditub jë te musumaa yëkkati siditub jëwam nee na sëñ tubaa bég lool keroog sëñ Baye ma nee na looloo tax ma tuddee sëñ daam abdourahmane seede boobu ma seedee ci sëñ ba sëñ tubaa bég ci man moo tax ma tudde ko sama bi mooy sëñ daam atta yàlla na fi yàgg seede loo soosu sëñ ibrahima nee na moo tax mu tudde ko sëriñ daam atta hmm. sëñ daam abdourahmane mbakke yàlla na fi yàgg jàng nañ ci sëñ mu dem. xam-xam dem na gànnaar def na ni ñëpp yi def. waaye fu mu mës a ñëwee rek day dellu ca daarul alimul xabir ndax comme amul ndijaay Sénégal sëñ daam Abdourahman loolu la ko sëñ Touba féetale woon ndijaale ndijaayale ko ko. dégg nga léegi daarul alim kabir googu mooy ndaam. mooy ndaam. fu mu mës a dem bu jàngi ba jël la fa nekk bu dellusee see Sénégal day daal di dem ca daarul alim parce que sëñ ndaam. Abdourahmane loo mu mi ñu tudde sëñ Daam Atta moom la ko sëñ Touba ndijaayale woon parce que amul ay ndijaay Sénégal hmm, waaye bi muy dellu ci ay nijaayam fekk na mu miin arab mën ko di ko làkk am ci xam-xam am fu mu ci toll doo ko delluwaat Mauritanie hmm. Mauritanie dafa jànge ji ah. dafa jàng fii xam-xam dem jàngi dellu siwaat ah. sëñ Touba moo dul nawle wala fii ñooy wax ku am kër ndey am nga kër baay. waaye sëñ Abdou sëñ sëñ sëñ Abdoulahi borom dërbeeg sëñ Ibrahima. bi ñu matee ba motti laajuñ seen wayjur. tey parce que li ñu gëm mooy amuñu bàyyi taalibe yi borom Tuuba waaw